ñetti weer bu tegal ay bés ginnaaw bi nguur dakkale dem ak dikk bi ci biir région yi daal dina koy ubbi waat man cette place lay xaar quoi pour mën a woon nañ ko torop sax da da am ay soxla tamit doo mën dem doo mën def dara. maa ngi jëm bawal. coow li bari lool ñenn ñi toog di xaarandi ñeneen ñi jël oto di waajal départ ñu ngi fii ci biir gaar bu maraîcher bu Dakar. ay jafe-jafe ci wàllum njëgu tike yi Doudou kenn ci passager yi di ko ñaawlu. ñoom grève nañu ba ubbi ba gaay euh, bi maintenant nit ñi ñëw. nga war a dem Saint-Louis loo doon fay 2500 wala 3000 ñu yokk ay paas. ñaata la ñu wax léegi. bon léegi nee nañu 3500. te loo xam ne 2500 la woon maanaam daal bon doo xam quoi et puis benn bis des ministre bi lu mu waxoon ñun gis ñu si dara. dafa ne woon mesure d' fii gis nga fi mesure d' accompagnement gis nga bi distanciation de 2 lii mooy daf ñu tay la coronavirus bi.

li yoon tëral. fii dafa am ay normes yu muy doxee. Saint-Louis passe 3 3200 la car. 3200 la bu dee 7 places passe bi 5000 la yokk musul am fii peut-être ñoom ñooy bëgg a jaar à péage chauffeur bi ne augmenter leen ku nekk 200 la ñu kii mais fii tarif normal 3200 la pour mini car. tarif unique la ñu yeb tableau bu ne ku fi yokk tarif ñu xeex ak yow.

wax deug yalla am nañ fi masque yu ñu président may gel yi aussi mu ngi fi té aussi li bees dal ci liggéey bi moy légui ay manifeste ñoo am auto buy génn dinañ xam client bu fa dugg fu muy wacc ak moy kan nga xam ne bu ñu ñun ñu fiché ko denc ba nga xam ne dinañ identifier képp ku mësa dugg ci gaar bi. mesures yi ñu jox yépp jël nañ ko oto yi moom ku takkul masque moom doo ci yéeg yépp kuy yéeg da ngay laal gel civilisé non problème dal amul ben dérangement amul ben violence. takku masque ak jëfandikoo gel hydroalcoolique passager bu nekk war na ko matal rax ci doli képp ku yéeg ci yile woto dinañ jël say filiation maanaam bépp xibaar ci yow loolee ngir mën a identifier yile passager.